asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki safo GP TV Sénégal ak Étoile TV Sénégal ñoom ñi nga xamante ni ñoo leen di toppal information yu baax yi nga xamante ni mooy jógee fi nga xamante ni mooy Tiwaawan mbokk yi ginnaaw information bi ñu dégg léegi ñëpp déggandoo ko muy tàkk-tàkk bi nga xamante ni amoon na fi si koñ bi ñuy wax Diallo borom place bi nag moo nekk ni mu doon place mécanicien waaye tamit mu doon place boo xamante ni place bu mag la fi nga xamante ni mooy Tivaouane mbokk eh, moom lañ toogal dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu laaj ko naka la fee demee salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi leen di ziar tur bi naax Mansour Diop. Mansour Diop eh, ñu ni eh, bi ñu dogoo ba pare sa place dafa doon tàkk te ñu bëgg a xam fee naka la demee. Ah, ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen. ñu leen di ñaanal yàlla. ci weeru koor gi ñu dugg yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ci alhamdulilah rabil alamin ñu sant nag parce que atelier bi tàkk na waaye nag bala ma wax dara damay sant ñi nga xamante ñoom laa fi fekk nu sonn ci muy waa koñ bi képp ku dox rek yam ci rek sonn nga ci ngir lan bëgg mu fay mais yàlla dogalul sapeur tamit ñu dikk sonn nañ ci lool mu door a fay atelier bi léegi laa ci wàccee maa ko tëj summeekooguma maa ngi nii ak sama tëni dama àgg même pas cinq minutes nu woo ma ni ma sa atelier baa ngi tàkk ñu ngi ci nag di ko lijjanti lu taal incha allah buñ ci amee leneen loo xamante ni nii war nañ ko cee wax yéen lañ ci dolliwaat incha allah. ñu ngi xam tàkk bi ñaata minit la duré avant sappo di ñoo tàkk-tàkk bi duré na parce que man bi muy tàkk fekk ma fi wax dëgg yàlla. dañ ma woo parce que tàkk-tàkk bi tàkk na lu yàgg man rek duré na fi lu mot deux heures de temps tàkk-tàkk bi nekk fi parce que sappo dafa yéex a ñëw parce que bi ma leen laajee dañ ma danoo demoon inter danoo am fu demoon intervention. mu mujj gi benn booy bu fi nekk moo taal motam dem jëli leen biñ dikkee ñoom it presque am nañ fi une heure di fay wax dëgg yàlla euh, di fay te mënta fay parce que euh, moto yi nekkan ci biir moo tax ak ak ak bagage yeeg yeeg yooyu moo tax mu gën a yéex a fay fay gis ni palace bi yaatu na ah, biñ la woowee ne la sa place bi ma ngi tàkk bi nga ñëwee fekk nga dafa mel ni lépp tàkk wala waaw lépp tàkk na yi moto yi fi nekkoon yëpp tàkk na parce que ñaari jakarta moo ci nekkoon ci bunt bi ak benn scooter ñoom lu yam rek lan tàkk mais li ci des yëpp danoo tàkk tàkk nan tey nekkoon si xayma ñaata moto lay tol ak i vélo gis nañ daal matériel yi tàkk si biir. matériel yi moom wax dëgg yàlla bari woon na fi trop matériel yi bari na fi. Euh, scooters yi rek huit scooters a ngi fi woon euh, huit ak benn moto SDE ak euh, ay bagages daal sama matériel yi ma daan liggéeyee yëpp ah. yi ma jëndoon di ci sottandiku yooyu yëpp ah yëpp a ngi ci woon ci biir dëgg yàlla. bu mel ni place bi génnewul dara. non place bi génnewuñu ci dara génnewuñu ci dara wax dëgg yàlla matériel yëpp a lakk gis ngeen ni mel. tey loolu mu metti lool sa place nga wàcc rek dem ndogu ji dikk fekk euh, bagage yëpp lakk matériel yëpp di tey jii nii yaa ngi GP TV Sénégal ak Étoile TV Sénégal ñoom ñi nga xamante ni ñooy surtout dëkk bi tey boo amoon message booy lancé ndaxte tamit euh, ku la gis xam ni ku am jom nga te liggéey rek moo la fi bàyyi tey kon war nañ laa gën a mën a jàppale si benn côté ba nga xamante ni xëy na dañu sax naqar bi gën a gën a dañ mais gën a wàññi ko bu baax a baax tey ban message ngay lancé autorité yi nekk Tivaouane ak ñi nga xamante ni ñoom nekk mën a jàpp parce que lii lu metti la te it war nañ see mën a jàpp bu baax a baax. waaye sant yàlla sant yàlla man nag euh, dan maa yare noo xamante ni nii dus naa di ñaan ndimbal man din ma yare dus naa di ñaan ndimbal keroog bi may damm euh, tëdd sama kër feebar yoruma xaalis mais rus naa ñaan nit pourtant am ñoo xam ne moo leen woon na faj damaa faji sama bopp damaa tëddoon feebar damaa damm nii may waxee yow mais di daw dépense moo ma tax ma dindi tabax bi ñëw fii di liggéey maa ngi tey laa xëy si maa ngi door a wàcc àgg sama kër même pas cinq minutes ñu woo ma ne ma saat lee baa ngi tàkk ñu ngi ci nag di ko lijjanti mais mënagun laa wax lii moo taal. mais dañuy gis ni comme que sa place dafa lakk lépp lakk génne woo dara bu dul naan ndimbal sax parce que du naan ndimbal ndaxte war na gën a mën a teg loxo koo xamante autorité yi ñëw nañ fii si yabal na fi ay nit ñoom Cheikh Diouf yeneen grand yi dama fàtte seen tur ak euh, kii Ousmane Ndiaye ak euh, am na beneen grand buy nekk ci Diop si te dëkk fële ci rokaat bi ah non non tam gàtt ni Mansour Mansour ñoom ñëpp ñëw nañ fi taxawu masawu ak ñëpp ah samay am di jàmm ñëpp wax dëgg yàlla dëkk yi ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw nga fi masawu wax dëgg yàlla oh, sama xol daal ñoom daal noo ma giifal daal waaye ah, mais sama xol tooy na sànq ñu gis la euh, benn paa bu la doon nuyu di la euh, nga dem bay tuur xewal euh, loo sant yoon ba nga tax nga tuur xewal. Ah, parce que man li ma dama yéenewu ma nit lu bon man man sër ku nit lu bon yàlla naa ko ca jiitu xam nga ku ma mënta nekkal ki ki ma respecté wul man ma am dama koy bokk nit ñi. ba ma dalee liggéey mécanicien léegi def na ay ati at waxuma la at ay ati at. bu ma nee la denc ma fukki junni di ma gëm lu ma am dama koy bokk nit ñi loolu laa xam parce que ci loolu lan ma yare sama yaay day dem ba naan ma mën soo di nga liggéey ba sonn am dara man ko lu tax mun ma parce que loo liggéey bokk ak nit ñi te lu nit ñi liggéey denc ko man ko comme que nu ngi may yaakaare ngi sant doy na sant ah. beneen question mujj bi loo jàpp ni moo ko taal ba tey waxaguñu si lu leer. non loolu moom mënaguma cee wax tant que àggalewu ma ci ak waa police parce que ñëw nañ fii ñu ngi enquête sapeur ñoom ñëpp dama bëggoon a bàyyi daal ba affaire yi ñu xam lu lu xew. mais jàpp nga daal bu nekkoon si biir wala daal courant bi moom taalu ko parce que ñun liggéeyuñu ci courant ñun mécanicien moto la ñuy def fii amul ci suuf dara amul ci suuf amul lenn loo xamante ni day taal lu nekk ci atelier bi déedéet. waaw boobu daal toj toj bi daal nan yem ci toj toj bi daal. toj-toj bi daal. mais toj bi si la nekkoon wala toj-toj bi. atelier bi amul aération. bi ma fi nekkee léegi mi ngi bëgg a yàgg maa ngi fi bëgg a def quatre ans ou bien cinq yëpp maa leen fi jiitu mais atelier boo musaan a xëy tijji li fi nekk ci tàngoor doo ko mën a accepté moo taxoon ma bënn ko ci ginnaaw pour mu am aération man maa ko bënn mais bënn bu yem laa ko bënn tey jii boo fi dugaloon xale bu ndaw bi bu duggee du génnaat mën nañ laa yore ci biir ci biti mais doo génnaat parce que ni ma ko yattee nit nit xale bu ndaw rek a fa xaj sapeur di ko fay mënuñoo fay li nekk ci ruq ba après ci lañ jël seen marto ñoom dajji ko jaare noonu samp ci raakol pour di fayee ko côté boobu ñoom noo ko yokk noonu non sapeur mënuñoo teel a dugg ci biir parce que dañ fi fekk tàkk-tàkk di ko fay loolu taxaw nañ ci buntu bi lu yàgg di fay buñ affaire bi xëy wàññeeku nag ci mën a dugg ci biir pour mën a fay yenn yi looy tàggatoo. ah di jaajëfal ñi ci nekkoon di sonn wax dëgg yàlla ku mel ni sama grand frère Kàbbu sonn na ci dajji sonn ci kër yi ku nekk joxe ndox ku nekk daw sant leen daal sant naa ñëpp ñëpp laa sant ñëpp wax dëgg yàlla sonn nañ ci lool wax dëgg yàlla mënumaa lim kenn mais sant naa ñëpp ñi ci sonn di ko fay yàlla mi amuk fay yàlla na leen yàlla fay ci barki Yonent bi yàlla may xolu muñ amin ñu bokk ñu ñëpp ci jaay nabil Moustapha jërëjëf xeer bii ni gars yi ko toj de non non mbir be non lii diggante bii li ko dalee fii waaw ba nii ba nii gars yi ko si la nekkoon yaa ngi gis ñun ñun waaw man ko jaarale hmm. ñëpp nag loolu nan maayen ابن هلي ولي جلي سوانا مويلي funti foyde ha gore heewi e dow golle bonde en dam boni ndaretuna futti fuyni be kono wan jalo be aduna heli woli jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna ko fuuti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare duna fuuti fuyni kono won jalooɓe nahali wali jali so wona ko ñaami so wona mo yeli dañata dole aduna hali wali jali dañata ko ñaami so wona mo yendi dañata dole ndaare aduna ko funti foyde ha gore jam ko heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare tuna funti fuyni won heɓe woyoɓe kono won jaloɓe ta ko ñaani